mais xam mais xam nga xam nga lan la may andil. Ah. buzz xam nga pour lan. Hmm. parce nit ñi xam nañ ne man dama yoroon avant xam nañ ne tamit Saliou Samb liggéeykat la xam nañ Saliou Samb Saliou Samb di nitu caaxaan maintenant nag ay dog-dog am na suñu diggante euh, on a perdu de l'argent ensemble. Euh, euh, je pense que nuñ ko. mais bien sûr. man man man man déjà déjà man ah, ah. sama entreprise dama ko yóbboon andi woon en location 240 millions yoral nañ ma ko fay ñu ko. sa li ñu liggéey foofu yëpp mosuñu jox dañoo woon fay 10 millions par mois à mon entreprise mosuñu fay location. et et dama am preuve yi c' devant c' est devant la justice. Hein? donc euh, loolu yëpp ñu def ko kan moo ko signé woon location bi Fernand donc ça veut dire que nga xam ne kon euh, yooyu mais moo tax ma moo tax bëgguma dugg ci du xam nga xam nga balaa muy mooy ñu bàyyi yoon def liggéeyam ba pare foofu nag ñu mën a toog mën a waxtaan am na solo parce que nit ñi xam nga dañoo xaw a jaaxle naan vraiment sëñ sa der bi moo tax wax bi am na solo te li nga leeral ni am na solo mais xam nga man euh, euh, ce que je dis rek hmm. boobu ñu waxee la loolu pare ba ma demee sama premier match Stade de Mbour nga gis jeunes yi les supporters ñoo nañu président ñun yow lañ gëm ñun xam nañ ban genre ni nga ñii kenn mënul yàq su kenn mënul yàq si der man loolu moom am na importance et puis tamit ku nekk sa bàmmeel yàlla li nga yàlla yàlla yàlla moo yor a sutura nit euh, nit ki mën nga dem ba pare ñu wax ci yow ba nga def ñëpp defe ne lan la comme ça yàlla wane ne demeewul noonu parce que su demeewoon noonu ça veut dire actuellement du ma fii di wax ak yéen je pense que Sénégal gii yaay y a une justice qui est là euh, lu mu wax yëpp dafa dem wax yëpp ma jël ay feuilles ay preuves. yóbbu dem jox ko juge bi. toog di leen xool.

Euh, dama man dama ñëw dama ñëw di ko di ko jàppale dama bëgg mu respecté ma su ma respecté wul su xalaatee ne man mi nekk ma nit ku baax euh, du jox cër bi ma war a jox donc moo tax man duma ma ci soxlawu ma kenn ku ma ci jàppale euh, la justice est là pour tout le monde mais Fernand Coly c'est une c'est une c'est une personnalité ëpp ma ko doole ci kii si si biir Sénégal su nekkoon ne loolu muy wax ay yore na ay kayit yu leer ay ak ay preuve yu leer mais kon man kon justice bi waxatuñu waxal waxal waxal man maa ngi maa ngi bu yàgg. mais c'est que dama la wax le monde lu mënul am mënoo ko inventé ça veut dire qu'on a perdu de l'argent il a perdu de l'argent j'ai perdu de l'argent Mamadou a perdu de l'argent maintenant en tant que su nekkoon businessman dafa waroon ñëw ñu ànd à table ñu xool entreprise baa ngi fi gentleman nañ xam ne naka la def ñu remettre la machine en marche mais c'est que nag comme comme parfois nag business da ngay da nga ciy dëkk wala da nga koy wala mu la xam nga peut-être que footballeur la euh, aay na ci football bi mais business aayu ci quoi